très chers amis internautes de la Sen Série TV maa ngi leen di nuyu remercier bu baax a baax si ni ngeen di àndee saa su ne ak ay programme euh, tey seen rubrique décortique dafa ñëwaat ci série ñu door ko ak euh, Asi moom nag xam na ni xaritam bi euh, Kona fi mu nekkoon waxu ko ndax nag histoire bi mu inventé loolu rek dalul xelam te yaakaar naa nit buy wax dëgg neex naa xam kuy wax safaan itam te it nit bu ñuy ànd aussi ku nekk day xam moroomam kon bu sa morom di wax dëgg di bi nga xam ñu jàll ci alaaji góora moom nag dafa am lu ko métti mere trop ki nga xam ni moo di sëriñ di doomam muy loo xam ni lu normal la ndax yaakaar naa doom boo ko amee yar ko ci yoonu siraatal mustaqim mu màgg jël beneen yoon di def naka su dul noonu ak loo xam ne day gàkkal deru sa famille nekk na doom joo xam ne doo fier ci moom waaye sa xol du neex si moom te sëriñ noonu la taxawee ak waa këram noonu la taxawee ak papaam ba tax na wax ju ñuy wax euh, mbiru ëmb bi mu ëmbal Amina euh, noppeeguñu mu dem di waxtaan waxtaan sëy kër aji euh, ba waxtaan Euh, ku ne xam na ni euh, jullit wala gor sa kaddu rek nga am fépp foo joxe sa kàddu moom euh, jeex na mu mel ni kon alaaji ki nga xam ni moo di sëriñ dugal na ko ci guuta goo xam ni doy na waar trop ñu jàll ci bas moom nag dafa buggoon porter plainte jama soppee ko bi gami waaye nag heureusement ba avocat bi mu dajeel boroom xel la te yi naka xelal na ko ndax dèjà xamal na ko nit ci lislaam rek ñoom seen sëy daganul ndax sëy bi dafa illégal ndax nag baara yëgoo l'islam dafa contre baara yëgoo kon mu mel ni jama instant yi moom si njaalu bu métti la nekk ji di bas képp kum ci nekkal rek nekkul nekkul ak jëkkëram ndax benn sëy ah, daganu ci ñu jàll ci baay ak yaay sira ñoom nag gis nañ ni lu ñuy gën a dem ñuy gën di bëggante waaye di gën di nekk si jàmm loolu nag la ñu naan mbëggeel amul âge de 7 à 77 ans la waaye ñoom ñu ngi koy dëggal te it nag ñu ngi koy euh, jëmmaal ba tax na jamaa bëgg yàq euh, rythme boobu bëgg takkal papa ji ñaareel waaye nag gis na ni euh, yaay sira ak ki nga xam ni moo di bàyyi dañoo suudewu de sorte que lu yaay sira wax rek moom la bàyyi wax kon jamaa sotti donte nag da doon mbalak waaye gis na ni loolee jarul sax café ndax papaam xalaatul def loo xam ni day métti yaay sira moom jama nag évoqué nag kaawu ki nga xam ni moo di aasi xamal ay wayjuram que ni dafa am copain loolu nag bett na leen te it na leen waaye bi ñu xamee ni euh, euh, la tekk la ñu def ndax ñoom euh, lu laale ak maam aas wala lu taxe ak maam aas dañ koy wekk te amuñu lu ñu ciy wax donte nag ki nga xam ni moo di aasi xam nañ ne xale la te jotul peut muy am ay copain ak yu mel waral waaye tey ànd nañu ci te it nag waxuñ ci dara ndax ñoom mbégte la si ñoom waaye fierté la si ñoom seen njaboot di jaxasoog njabootu maam As ñu jàll ci Mariam ak collègue am bi nga xam ni ñoom euh, ko ci nekk am nga sa vie mu mel ni kon ñoom ñaar dañuy ànd rek di bëggalante ak euh, bu ñu amee lu ñu soxla rek ñu daal di koy euh, defante ñoom ñaar waaye terewul ku ci nekk yaa ngi ak sa vie ku ci nekk itam yaa ngi ak ki nga nekkal waaye gis nañ ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk ki nga nekkal jox joxoo ko cër bi war waaye day dem sax balay soof mu mel euh, ñu mujj ci euh, nekk ensemble donte nag euh, ci këréel rek la ñu dëkk ñu jàll ci mère ami yaayu moom nag gis nañ ni bëkk néegu alaaji bi dafa ñëw di rek waslu si ak ak di waxtaan ak moom waaye xamal na ko moom bëkk néeg bi deful liggéeyam ndax bu defoon liggéeyam carrément du ko bàyyi muy wax si digg nit ñëpp li nga xam ni moo di dëgg bi mu mel ni kon delloon na ko place am waaye xamala reetaan na ko bu baax a baax euh, liggéeyam ñu jàll ci Awa Kiné moom nag ñëw na si Jama daal di koy attaqué xas ko ba mu ràpp ndax Jama dakaa bëggoon a euh, suuxal bugg koo dugal ci guuta goo xam ni du xam nu mu ci génnee ndax yaakaar naa ni euh, nit koo xam ni dafa def dara pour jàppale la kooku waroo koo weer te Awa Kiné loolu la jàpp dafa jàpp ni Jama da jam paaka ginnaaw ndax dafa dem weer ko ba tax na digganteem ak bas génn na ci ba set si wecc te it nag li mu waxoon ne dina fexe ba génne ko ci dootu ko defati te na ko jama lay daal di tudd ñu jàll ci jama moom nag dem na kër bas euh, pour nag accomplir ay bëgg-bëgg bas ndax bas li mu bëgg mooy jama comporté wu comme euh, jabaram waaye terewul ak moom pour raisonner ko xamal ko ni ko bëgg na ko te it ñoom ñaar bëggante nañ waaye alaaji dafa nekk koo xam ni moo gën a responsable te bu nekkee ak moom ci lay gën a sentir en sécurité ndax bu nekkee ak bas day jàpp ni si njaalo la nekk wala ci loo xam ni euh, neexul yàlla ñu jàll ci ki nga xam ni moo di asmaawo moom nag gis nañ ni jigéen bu am fulla la ci boppam ku am fayda la waaye femme de caractère ne amul euh, kenn du ko yàpp góor du ko yàpp waaye itam bëgg jëkkër du tax mu asaaloo boppam wala nag euh, muy dugg ci loo xam ni xamu ko euh, ba tax na wax na lu leer ak ki nga xam ni moo di Cissé yemale ko ndax nag amul ci moom confiance ndax ku nekk ak ni mu ñëwee si yow te gis nañ ni Cissé bi mu ñëwee ni mu doxalee nekkul doxin boo xam ni jar na jox confiance wala ngay dugg ci moom ñu jeexal ak ki nga xam ni moo di jànk bas bi moom nag gis nañ ni depuis keroog la ñu soupçonné que dafa bëgg bas waaye tey nag